doore xibaar yi suñu naataango taskatu xabaar bi ji uh, uh, Pape njaay uh, te nekk ca Walf TV dina fa yéene nag taxaw ci kanamu àttekat bi bu deuxième cabinet ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai bi ñu dëgmal ngir ñu déglu ko ci mbir mi nga xam ni moom la ñu koy toppee ñeen lu jëm maaso ci outrage à magistrat ak li nga xam ni moo di diffusion de fausse nouvelle. toppee ñuy euh, dafa wax loo xam ne dëgguwul ci li mu waxoon ci ay ay ay procureur yu demandé woon euh, ñu nasaxal dossier aji Sarr Ousmane Sonko euh, yoon dina ci def liggéey mais ñun mm-hmm. en tant que taskatu xibaar li ñuy demandé woon démb lañuy ñuy demandé waat tey bu fekkee wàllu diffamation la ak yu xeetoog yooyu te amuñ ci benn méthode bu dul tëj nit ki kaso wala contrôle judiciaire Euh, loolu moo war a takk ndeysaan maa ngi gis mhm. démb réaction Racine Talla directeur général bu RTS mu ni rapport Reporters sans frontières ci ni Sénégal dafa la dellu gannaaw loolu du dëgg liberté d'expression dafa gën yaatu Sénégal mën ko garanti ni puis un journaliste dafa fàttali ne moom du journaliste politicien la dafa fàttali ne du journaliste moom directeur bu war bu ngand boo xam ni boo ko jiitee da ngay belli boo ko jiitee da ngay nanti moom booletuñu ko ci reporter bu ñuy jàmbat di wax journaliste am ay problème ak ñi ñuy jàpp ak ñu ne ci kaso yi ak ñi ñuy takkale ñi nga xam ne du weesu ñu takkaleen bracelet électronique ak ñu mënta tukki moom bokk ci moom nekkatul journaliste li dal Babacar Touré li dal Pape Ndiaye euh, grand grand Mademba nu mu tudd Birahim Mademba Ndiaye nee mm-hmm. na un journaliste ne doit pas respecter la loi mm-hmm. loi da koy tënk nag s'il respecte la loi def liggéeyam bu fekkee da ngeen bëgg di liggéey te respecte loi du leen liggéey xam nga loi bi mooy la mhm. nga joxe information boo xamante ni bii da ngay garder sa source léegi boo demee ci kanamu tribunal au lieu ñu xool ba xam li nga wax dëgg la wala du dëgg dañ laa rek indi sa source bu indi sa document ñu ne la recel document administratif dans ce cas taskatu xibaar mënta mucc foog ñu topp la ci diffamation wala ñu topp la ci fausse nouvelle wala recel document administratif wala injure publique dans ce cas taskatu xibaar dootul liggéey ñun kaddu yu mel ni grand Mademba Ndiaye la ñuy déglu mais bi kaddu yu mel ni Racine Talla nekkatul journaliste directeur RTS la ubbi rajo bi campagne Macky Sall ci banlieue bu Ndakaar kon bu ñuy génn parce que nekkatul sur le terrain Sénégal dafa dellu gannaaw dëggantaan ci liberté bi taskatu xibaar war a am pour def liggéeyam ci na mu jaaroo dañu jàpp sàcc Mhm, vite fait Ibrahim euh, Pape Ndiaye ñaar fukki fan ak ñett ci ci weeru mel la ko war a taxaw ci kanamu àttekat bi man li may wax rek mooy mhm. euh, mu jàngaloo ko àttekat bi mhm. c'est un citoyen c'est un justiciable comme man comme ñi toog nañ ci plateau bi bu demee défendre boppam ci lañ ko tuumaal euh, te moi je le répète je reste convaincu d'une chose j'ai confiance en la justice sénégalaise léegi nag maa ngi koy répété ko répété am na ci justice

njiitu réew mi nag bokk na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo euh, jiite ndaje boobu ñu gis si nag ay image yoo xam ni wër na lool euh, moom Macky sàll mu nekk ci ak ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci kujje gi ku ci mel ni Barthélémy Diaz ak euh, Khalifa Babacar Sall Soham El Wardini itam bokk na ci ñi nga xam ni teewoon nañu fa ab laaj nag samp jëm daal ci woote bu waxtaan bi nga xam ne jamono ji njiitu réew mi mi ngi koy woote yaatali ak Biram Xari Ndaw ci yile nataal ñu mën cee nemmeeku maire bu ndakaaru Barthélemy Diaz ak ñamu wutu di Khalifa Sall Saham Wardini ak Habib si ci wetu njiitum réew mi Macky Sall muy ambiance buy wone ndorteelug jaloog diggante acteurs politiques yi njiitum réew mi Macky Sall ñëwoon ngir jëmmal juróom-benneeluk forum mondial bi soxal wàlluk économie sociale et solidaire xaw naa sax taggaale opposant bi di Barthélemy Diaz. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Toy Diaye. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy, yaa ngi doxal de <laughs> mais mu ngi doxal mu ngi doxal c'est bien. Comme disait l'autre, je dirais à ton papa Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. bi mu jëlee kàddu gi moom maire Barthélémy Diaz jot na rafetlu organisation bi le forum te ville bu Dakar organiser ko ci njàppandaluk état bu Sénégal. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement de l'état du Sénégal. damay rafetlu état bu Sénégal ni mu jàppale ville bu Dakar ba mu taxawal bile forum wante itam di ko jaajëfal ci loxoom bi mu dugal ci bile organisation ba tax forum bile daal di gën a mucc ayib. organisation du forum mondial sur l'économie ci noonee itam maire bu ndakaaru am yaakaar ne bu jaaree ci responsabilité pouvoir public yi lee dina gën a mën a jëmmal ak itam dooleel communauté yi lu ci mel ni ndaw ñi ak jigéen ñi ngir seen ëllëg gën a mën a mucc ayib Barthélémy Diaz ci bile ndaje jot na sargal ñi mu wutu ci bopp mairie bu ndakaaru jàpp ne ñooñee doon nañu ñu am solo ci wàlluk promotion jëm ci économie sociale ak solidaire biram eh, démb lañ ubbi eh, eh, boobu forum yow lañ àndaloon ci ci jàngat li Euh, njiitu réew mi euh, jiite ko ñu gis nag kàddu yi nga xam ni euh, moom la fa yëkkati bu weesoo image yi nga xam ni fës na lool ak sant gi mu sant Barthélémy ak liggéey bi nga xam ne ñu amal jamono ci ah, pardon mu ngi noonu donc gis nañ ko ñoo ko gisandoo démb amaana sax ko ñu bëri gisee am nañu xaw a ci mm. naka la mën a demee tey Barthélémy Dias mi nga xamante ne bi tey ci ku jege la bokk mm. jàkkaarloog Macky Sall di reetaan yenn façon reetaan yoo xamante ne bi mm. tey njort nañu ne am na luy waaj a xew am na nag ñu naan ay diir politique dafay am diggante diw bi ñu gisee image yi dem dañoo jàpp ni nekkatul diw boobu ñu xalaatoon mais diw la bi nga xamante bi moom mooy Barthélémy Dias ci seen kàddu mais gis nañu euh, si euh, ki ñuy wax Khalifa moom mi nga xamante ne bi na moom euh, ci waxtaan bi nee na moom la bokk rek ci élection présidentielle yi wante lépp loo xamante ne bi tey teg nañ ko ko ah soxlawul leneen lu dul bokk tey ñu ñu ñu xëy ñu gis image yu mel nii ci jamono joo xamante ne tey l'actualité émaillée par ce qu'on appelle le dialogue donc ñu ne nit bokk ci dialogue bi am ñu ne ñoom du ñu bokk parce que ci opposition bi lañu bokk mais bi ñu gisee di démb démb euh, xel dafa commencé ñaaw kër est-ce nekk ñu di tàmbali bi nga mhm. xamante tey moom mooy dialogue mooy dialogue bi euh, bi nga xamante ne bii euh, officiellement mais am na ñu koy ruumalaat suuf loolu moo gis démb xëy na nag mhm. a xel mais am na ñu a analyser mhm. aussi beneen sens euh, bi ban gis-gis nga am ci euh, forum boobu nga xam ne xew na démb ak image yooyu nga xam ne fas na te bu ñu euh, fàttalikoo moom Barthélémy Diaz waxoon na ni du mës a toog ak le président Macky Sall démb ñu gis image yooyu ñu fasal waaw non non euh, je pense que forum bi c'est une excellente initiative mhm. qu'il faut saluer parce que xam nga soo ne ca la nekk lépp li nga xam ne c'est a l'initiative du gouvernement de, des institutions que waroo ci dem ce serait totalement irresponsable moo tax ma mm-hmm. d'accordoon ci euh, Birahim li ma mm-hmm. doon wax tout à l'heure mm-hmm. et on ne peut pas faire la politique de la chaise vide il faut que ñu wane ne que ñun ay responsable lañu et que Barthélémy Diaz en tant que maire part dugg ci forum bi en tant que maire du de Dakar kooku c'est même pas une oubli c'est même pas en fait un droit, mais c'est une obligation. Il faut faire la différence entre mm -hmm. la situation politique, qui en fait sur le plan politique, vous n'êtes pas d'accord, mais vous fait qu'il y a des manifestations, c'est dans l'intérêt de la population, il est important que nous nous Moi, je